maa ngi lay fay euh, mon fils euh, di di la kontaane di sawar lool ci bokk ak yow jataay di xaar nag say laaj ma tontu jërëjëf. alors fan yii passé euh, gis nañ ni Boy Kayre dafa génn ak Diène Kayre def benn sortie ne ñoom Siteu sax ñoom nee nañ soxlawuñ Siteu parce que Siteu ñoom public la leen ëpp rek mais bu dee waal palmarès ñoom ñoo ko gën a riche la palmarès père loolu loolu bu ñu ko déggee nag nga ko dundee. loolu wax bu yàqu la bëgg a la bëreeg Siteu nag da am xaalis day doon événement waaw mais loolu wax bu yàqu la dama doon sox duma ci tontu mais bu fekkee làmb lépp solo mooy boo daanee fu mu la yóbbu mënoon nii la Coins di laaj Siteu jën mbër la champion la xale bu ñeme la xale bu mën a bëre la xale bu yaru la mi ngi def ay preuve am mais bis bu ñu làmb boolee duñ ko bañ dañuy bëre force. kon da nga jàpp ne instant yi làmb non jamono ji làmb boole wuñu promoteur bu ñu woo bu ñu la raisonné da ngay nangu ne xaaral ma witi keneen ñi ngi dox yeneen combat Siteu mais du moog jéen jamono ji ñu toll mais bis bu ñu làmb boole dañuy bëre naka nga gisee Diène Kaïré na moom euh, moo dàq bëree Siteu bu ko jàppee daxee daan. ànd ah loolu waxi bëgg a bëreeg nit la rek waxi bëre bëgg a bëreeg nit ki la. Mhm. waaw mais jamono ji moom du mook Siteu. ñoom ñaar làmb boolewu leen. déedéet bés bu leen làmb boole dañuy force duñ ko mën a bañ force lay doon waaw. ñoom ñaar bu leen làmb boole te non non duñ ko bañ am na ñu ko laaj de. nee nañ non loolu ah, mën ngaa nii la Coen si di laaj jéen sa di di laaj Siteu loolu wax bu yàqu la dañuy wax rek. ah papaam nee na bu fekkee ci ay public la ko ah, la ko teg nee na jën kaay léegi Siteu ëpp ko public. non non. loolu la wax te moom moo moo wax loolu. nga ne moo ne. Euh, bu dee public la bu nekkee public la public la. mais jéen ci biir combat la duggoon si tax xajul ci benn combat. benn combat nag benn bër. Hmm. bu si tëddi dugg ci sa biir combat amul. kon danga jàpp mbooloom xajul ci ginnaaw benn mbër. si tax xajul ci benn mbër pour di la bëreel ñu premier combat déedéet. Hmm. moom nee na euh, Siteu daanu fi ñu nga xamante ne ay champion la ñun ñu mu daan moom ñu moo gën a nekk ay champion que ñi Siteu daan. non palmarès même ki la daan da ciy bokk. ki la waaw parce que bu fekkee yow ki ma daan yow mënoo koo am. Hmm. non bëgguma dugg ci yooyu détail. waaw père ngay non non dama lay wax rek non nañ bàyyi rek parce que ñu laam dañuy bëree. waaw parce que bu fekkee yow mën même bu ma guy gi daanee Sa Thiès daan ma yow mënoo am Sa Thiès mënoo am guy gi ki daan day bokk ci sa palmarès parce que ñooñu boo defutoon dara duñu la jël. Hmm. pour tënk ñoom suñu doom la ñoom ñaar ñëpp mm-hmm. bés bu ñu làmb boolee dañuy bëre nee la boobaa Siteu du ko bañ force lay doon ah moom jàpp na ni moom euh, euh, Siteu du ko ragal de léegi yow même boo xamul dara ci làmb mën ngaa ni la Coence di bëre ak Siteu yow boo xamul dara làmb waaw mais làmb la Coence écrit lamsaar la ne kon su ma déggee revanche boobu moom nga gën a soxla que Siteu euh, kii Diène Kaïré booba combat boobu sax xel nangu na ko ndax dañoo war a leeral ñoom ñaar waa ne Modou Anta mi euh, mi jën kayre daan na waxuma loolu daanu ma sar koo daan sos bugguma lim làmb booleekuñu pour ñu bañ fenn di sori hmm. làmb booleekuñu mais suñu làmb boole dañuy bëri hmm. léegi naka booy jën champion la xale bu yaru la xale bu mën a bëri la xale la bu làmb bàyyi xel hmm. champion la naka gisee am ni peeram génnee moom soxla combat boobu euh, non waaw jaatu na surtout boo bëree ak moom am xaalis boo bëree ak moom mu doon événement essai moom nekkul pour jàpp euh, Siteu daan ko. de daay loolu ñun loolu. loolu du lu ñu gëm xam nga loolu moom mënuma cee waxtaan ndax nag xam nga liir bu ñu ëmbagul moom ngénte du duma ci waxtaan jotagul mm-hmm. bés bu ñu làmb boolee dañuy bëre alors nu ngi noonu mbokk ah. internetu euh, Dakar Net yaakaar naa ni euh, <laughs> euh, yéen doon laaj sorte père Max Mbargane tey génn na wax na moom naka la gisee réaction bi nga xamante ni boykaar yi génnoon na ko def ko léegi père duñu defee du lu jox la nga tàggatoog mbokk internet yi lay seetaan waa di kontaan ci yow xam naa ne am na ci loo xamante ni junj nga ko sax danaa la ca mosal muy Eumeu Sène ak Bombardier muy combat boo xamante ne nii làmb da koo bàyyi xel Bombardier daa tëkku woon ne xale yi gën a ës danaa leen daan daan ñaar ñi kenn ki daan ko kenn ki ko daanoon la war a bëre waat ak mais moment bi ñuy bëre nag dafa fekk Eumeu Sène am ñaari defet yoo xam ne Pikine ba léegi nangu luñ ko ko baal mooy ni mu ñàkkee roi des arènes dajeeg Lac de Guiers xeexul bëriwul ñàkk par décision arbitrale war a bëre waat ak Bombardier waaw mbokk internetu euh, dakarnet point comme kon ni ñu defee à chaque fois euh, di ko doon laaj mi permas yaakaar naa ne génn na pomit mooy wax na di jox dig daje ak neen incha allah jaa ngeen jëf